asalaamaaleykum euh, mbokk internetu euh, wasaare news ak lii di Dakar Midi ñu ngi fii ci euh, Texaco Texaco nag ku ko tudd ci Pikine xam ne fii dafa am une forte affluence si nit ñi ñuy dem buntu Pikine ak ñi nga xam ne ñooy dem fële ca Tali Diallo tey nag li ñu fi indi mooy ginnaaw bi résultat yi nga xam ne élection locale yi génn nañ ko. 23 euh, janvier fii nag euh, Cheikh Dieng moo fi doon jongante kii di Ablaye Timbo au niveau de la ville depuis un certain temps nag euh, Ablaye Timbo lañ déclaré vainqueur avec plus de 48 000 voix kee nag kii di Cheikh Dieng ñu jox ko 46 000 voix depuis lors nag démb Cheikh Dieng woote na lii di conférence de presse pour contester yooyu résultat ñu ñëw fii si bu Pikine pour laaj askan bi nan lañ gisee loolu noonu. akamu ziar nañ la. waaw yàlla na yàlla nu sant bi. man maa maa ngi dëkk Kaba dëkk bu ñuy wax Kaba. Pikine laa dëkk fii nii Dakar. fi ngay voté. Euh, no Bawol laa woote ji woon quoi. lan nga dundee euh, élection yi fii ci Pikine parce que Sadio ak kii di Abdoulaye Timbo ñu ngi xëccoo kii ne maa gagné kii ne maa gagné lan nga ko dundee en tant que ki nga xam ne habitant de Pikine. ok élection yi moom ni ñu ko dundee mooy euh, parti pouvoir ñi nekk ñi féetee parti pouvoir li ma gis mooy ñoom lañoo jaxasoo parce que li tax dañoo jaxasoo mooy askan wi ñoo vote def vote te li ko waral mooy seen ñàkk compétent laa gis parce que bu fekkoon ne dañoo compétent du demee nii dañ leen di woteel massivement mais nag ñàkk compétent moo waral mu demee nii kenn ku ne di man li ma gëm daal mooy opposition bi ñoo gagné ñoo gañee kenn du laam-laame ñu parce que seen gagné dafa leer askan wépp waaw man nag may lancé message Sénégal di ko lancé président Macky Sall en tant que citoyen dëkk bi nañ ko réglé bul xool ku la faral ak ku farat ak yow bul xool ku la faral ak ku la faralul ku nekk ci yoon nañ ko bàyyi mun na ci yoonam ku nekkul ci yoon ñu déranger ko président daal yaakaar naa loolu mooy liggéeyam te muy rôle yi nga xam ne nii ñëw na gox yi muy maire yeeg ak policier yeeg gendarme yeeg ñëpp képp ku nekk ci yoon la teg ci yoon bañ a xool ku ànd ak ñoom ak ku àndul ak ñoom loolu moo waral vote sanction bi waaw man nag maa ngi dawal taxi nekk fii pikin may gis li ñuy wax cag-cag sonal na nit ñi ci dëkk bi parce que loolu li ko président bi moo leen war a dresser wala ministre bi bi nga xam ne ni moom lañ jox wàllu transport wax ne CGN depuis démb ba tey mi ngi euh, wax ci télé ak rajo yi dañ koy sàcc dañ kaa sàcc élection yi. waaw mi koy wax ne na dal rek na dal na dal ba résultat yi génn bu résultat yi génnee yaakaar naa ne moom euh, askan yi moom opposition bi lañ jox loxo dañ doon talal loxo daal vraiment. waaw yaa ngi ja yaa ngi si ginnaaw CGN. non maa ngi ci ginnaaw CGN. merci. am tur beeg sant bi. Jabel laa tudd sant Tall. fan nga dëkkee. Pikine Wakhinane. Pikine Wakhinane. élection yi xam nañu passé na le 23 janvier. démb barkaat démb ñu génne ne abla Ablaye Timbo moo gagné kii di Cheikh Dieng Cheikh Dieng woote eh, conférence de presse ne day contesté yooyu résultat parce que dañ kaa bëgg a néewal doole nan nga jàngatee loolu. ah waaw man de li ma ci mën a xam mooy kenn ku nekk daal li gën ci yow na la ko yàlla defal muy Ablaye Timbo di Cheikh Dieng parce que ñoom ñaar ñëpp samay xarit lañu Cheikh Dieng sama xarit la Ablaye Timbo sama xarit la waaw. wax dëgg yàlla comme ku yàlla def daal muy sa wërsëg mu na gën ci yow waaye li ci ëpp sens ci réew mii mooy nañu jublu ci liggéey bi te liggéey di ñaanal nag suñu président de la république d'abord ndax moom comme moo jiite réew mi yàlla may ko jàmm defal ko jàmm ak sutura ndax su amee jàmm ñi am jàmm waaye su ñam jàmm duñu am jàmm kon nañ ko ñaanal yàlla mu am jàmm d'abord li ñuy wax maire mooy bu leen nit ñi falee nañu liggéey te bàyyi coow li ak xaqante bi man daal loolu laa gisee man ndax bu ñu sañoon réew mi avancé waaye xuloo bee xeex bi de du ko avancé lool. ñu ngi nootee démb fii ay violence fii si Ecotaf nan ngeen koy dundee en tant que taximan ak élection yi tamit jaar na si jàmm ak salaam wax nañ kii gagné Cheikh Dieng mi ngi contesté yéen ñi nga xam ne ay taximan ngeen noo leen koy dundee violence yooyu parce que démb gis nañ fi forte présence lii di police. waaw ñun nag xam nga ñun yàlla def suturaal ñun ay chauffeur taxi lañu ay viandages yooyu toujours yàlla dañu koy um ñun man boo man yàlla damay um yooyu mosuma cee teg sama bët ndax lu ma sama baay damaa ñaanaloon te ba ma nekkee gune lépp luy saytaane na la um na la ump loolu la ma yàlla defal ba fii ma toog di wax ak yow ba am 70 ans mosuma gis loolu te du ma ko fekkee yàlla suturaal na ma ci loolu démb. bi police yooyu man maa leen wax ñu gaare maa leen gaare parce que man ma responsable la fii ma nekk nii bi ñu ñëwee bëgg a gaare man maa leen jox bu ñu gaare waaye nag bi ñu bi gaaree jour moom gisuma fi benn histoire nag ba ni ma fi jógee ñibbi yàlla nga may suturaal ci ay histoire man may ñaan yàlla yàlla bu ma ko fekkee te yàlla bu ma ci bokk lépp lu jëmale réew mi jàmm daal lay wax waaye lu ko jëmalewul gannaaw moom lu koy jëmale ginnaaw waxuma ci dara. wax mu bàyyi. ah bon man daal li ma la wax léegi rek. ku gën ci moom rek naka ko yàlla jox ki ci des muñ. jàppoo ne dañ kaa sàcc ah, waaw mais xam nga nag man loolu mënu ma ci addu addu bu xóot ndax comme man daw ma ci bureau élection daw ma fu ñuy. li moom dafa jàpp ne dañ kaa sàcc waaw man na man na jàpp loolu ndax lu tax aussi bon xam nga moom jàng na xam na droit xam na ay affaire man nag sama njàng daa soriwul sëfoor laa oto laa xam li ma la mën a wax daal mooy ku gën ci moom rek nag ko yàlla jox waaw ku mu gën ci moom rek na gën ci moom gën ci sénégalais yi gën ci président de la république mi nga xam ne moo jiite réew mi gën ci ñun ñëpp nag di ñaanal seen télé bi aussi yàlla suturaal leen may leen ndam yéen tam yàlla bàyyi leen bi ak seen directeur ak seen personnel yëpp ñëpp am jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi lay fay. ginnaaw euh, bi élection yi passé le 23 janvier. Mhm. démb bërki démb ñu déclaré kii di Abdoulaye Timbo mooy vainqueur avec 48 000 euh, voix. kii di Cheikh Dieng am 46000 plus de 46000 Cheikh Dieng nag démb woote conférence de presse ne day résultat yooyu parce que dañ kaa bëgg a néewal doole noonu ko jàngatee. Euh, ni ñu ko jàngatee waa tasaare waa tasaare la de waa wasaare. waa wasaare ni ngeen ko jàngatee mooy ni ñu ko jàngatee ñun ñun ñooy waa femme action développement ñi nga xam ne tey ñoo porté combat bi parce que ñun dañoo gañe Timbo gañe ko nag double. lu gën a duubul nag lañ ko gañe waaye Timbo comme moom mooy nijaay Macky sàll wane na nag Macky mooy président de la république gëmul yàlla kani dañu ko gañe ñu moom ville bi département voté ñu largement ñu moom ko war a taxaw jël suñu victoire ñu jël suñu victoire teg ci seen loxo timboo xëy di zibile di wane ne moom moo gañe te gañewul ñun nag li ñu porté suñu combat mooy suñu pré suñu suñu suñu maire nekk na nit koo xam ne lépp lu muy xeex da koy xeexe ci kaw tekk ak dal ak ay kayit moom loolu la ñu jàngal loolu lay xeexee moo waral tey ñun ñu toog démb heure bii ñu ngi toog di fête suñu victoire parce que nag ku amul victoire doo jubilé loi dafa am te li ñuy def fii diggante bërki démb bu fekkoon ne gañuwuñu amuñu droit def ko parce que xam nañu ki ñu àndal xam na lan mooy loi ñun ñii sax xam nañu lan mooy loi kon nag li ñu bëgg mooy président Macky Sall bi nga xam ne tey timboo fee mu toog moo ko fa teg li laay war a sóoli ne ko nañ ñu jox suñu mairie jox ñu suñuy caabi parce que nag li ñuy xeex dañu ko moom injustice la Macky sàll tàmm bala ñoo wàcc nag ki tali bi di def leneen nañu makki Sall wax timboo nañu jox suñu mairie dañoo soxla suñu mairie dañoo soxla suñu mairie nañ ñu jox suñu mairie moo gën ci bi muy neex loolu rek moo ñu a taxaw fii moo ñu tax di yendu fii moo ñu tax di fi fanaan lekkatuñu naanatuñu suñuy njaboot dañ leen bay ginnaaw toog fii nag di wan ko kan carrément li ñu gañe nañ ñu ko jox ñoo ko gañe nañ ñu jox suñu mairie lool rek lañ ñu doon wax ak yéen. lii commission de recensement des votes départemental démb moo ne kii di Abdoulaye Timbo moo gagné euh, Cheikh Dieng avec 48 mille voix kii di Cheikh Dieng am 46 000 et quelques loolu loolu yéen loo leen siy wax. parce waaw xam nga commission bi mooy ki nga xam ne mooy saytu kii saytu moom mag mooy ki nga xam ne moom mooy saytu la muy saytu nag am na noo xam ne tey bu ko doxalee wax nekk tey euh, Timbo moom moo gañe Cheikh Dieng ñun loolu duñ ko rafetlu parce que lu tax daa am lu ma la jiitalal dama ne la fii injustice lañ fi xeex. parce que nit mënul a gañe boo seetloo tey li nekk département yëpp. tout bu dee Thiès bu dee Tëngéej. Ah, bu nekkee tey géeja Géejawaay tout ku ci nekk tey da ngaa taxaw xeex. ñu jox la sa mbéeri mais boo nooy nooyaloon dañ ciy teg seen loxo parce que rakkam la fi ah, Ahmed Aïdara jëlee kon tey ñun li ñu bëgg mooy ñu jox ñu suñu mairie fii dëgg amatu fi xam nga lu fi am jaay doole moo fi am jaay doole nag duñ ñu ko def fii ñun parce que ñu ngi taxaw bii xam nga bii moom la ñuy jaay te li fi nekk. seen bakkan asalaamaaleykum mère mun nañoo xam tur beeg sant bi. waaw man maa ngi tudd Daba Kase sant Kase di responsable parti démocrate sénégalais en tant que ma nekk responsable euh, des femmes ma nekkoon ci benn coalition bu nuy wax coalition wallu wallu nag ku ne xam na ni Sénégal danoo sonn danoo war wut ku leen wallu moo tax nu tëgg sunu. parti bi tuddee ko wallu senegal bi nu ko tuddee wallu Sénégal it nu yàccaaral danoo toogoon di liggéey seen ñëw fi nag yéen dama cee kontaan ndax ki nga xam ni dafay jóg di tasaare naqaru askan wi sunu doxee ba yem ci ñun te nu yor naqar wu day ni nu yor ñun dañuy bég ci si yéen tim timboo dafa danoo nekk ci danoo dem élection kenn ku ci nekk xam na élection baat yi nga xam ne askan wi ñoo ko jël di la ko dénk docteur Cheikh askan wi ñoo ko wóolu jox ko seeni baat baat yi ñu ko jox ci département pikin ak commune bi daf noo leen suñu rëdd baaraam. commission bi génne euh, euh, na yi nee na Timbo nekk ci kaw ak bi loo leen jàppee commission boo xam ne commission naa fekk lañu. commission bu waxul dëkk. kii amoon na fa représentant waa amoon na ko waaye heure bi ni ko génnee résultat yi boobu Cheikh Dieng res benn kéem néew fa benn xaaj danoo toog ba xaaju guddi nu génne ko 2 heures du matin kenn ku nekk na ci sa lal ku nar a nekk ci dëgg doo def loolu ku nekk ci caaxaan rek mooy def loolu léegi nag ñun sunu wax mooy rek nan jox suñu caabi loolu. pare ngeen pour def

sant ñun naqara ñu tax a toog fi depuis démb ba léegi ñun ñu ngi si suñu naqar naqar bi mooy lan nañu jox suñuy caabi mooy dëgg ndax nan nga mun a nekkee ne ville euh, yaa toog ci ville bi ñu jox la budget 9 milliards nga ne yow liggéeyal nga askan mi lu ñu soxla ba delloo nga 2 milliards te ñun ñu nekk ay femmes yoo xam ne dañuy xëy ñi ñiy liggéey marché poisson ñëpp a ngi suñu ginnaaw kon xam ne kuy liggéey naan liggéey nga ba delloo nga 2 2 milliards. waxoo nekkoo nekkoo nekkoo si dëgg lan mooy euh, position jigéen ñi mooy nañu jox suñuy caabi docteur Cheikh Ndié lu mu jot a def kas néew fii ci jija caaray kaw ñun gis nañ ko te lépp dañ koo koñe mais buñ ko joxoon lañ ay ay ay ay yeleefam kon dina ëpp fii mais naka la nit di defee ay projet demandé pour ñu dimbale ko mu mun a liggéey goxam ngeen koñe ko lém lim lépp lu mu fi liggéey ci jija caaray kaw ci poosam la ko jox defee kon nag jox leen ko ay caabeem mooy dëgg maa ngi tudd Mati Diouf. maa ngi tudd Mati Diouf nekk secrétaire générale des femmes de la fédération de Pikine Dagoudane nekkaat secretaire général des femmes de la section de du Djiddah Thiaroye Kaw ñun li ñu dajale fii mooy dañoo am lu ñu naqari te li ñu naqari mooy Macky Sall moo ñu ko teg te duñ ko ndag ñëpp xam nañ ne. Euh, Euh, ki coalition wallu moo gagné les sept communes muy la commune de Dalifort la commune de Djiddah Thiaroye Kaw la commune de ginnaaw Rail Nord la commune de Guinaw Rail Sud la commune de Thiaroye Gare la commune de Mbao ak euh, la commune de Thiaroye Thiaroye sur Mer ginnaaw raay nord ginnaaw raay sud wax naa leen léegi set commune boo ko gañee ci douze commune léegi coalition Benno Bokk Yaakaar mi ngi gañe trois communes euh, ba kii beneen coalition bi gëm sa bopp gañe ñaari communes léegi yow boo gañee trois commune kii gañe sept communes nan nga mën a gañee élection Macky Sall nay wax na wax nijaayam dëgg na wax nijaayam dëgg wax dëgg gi mooy nit nit da ngay xool sa aqulaay taala parce que lu ñu àtte fii dinañ ko àttewaat dinañ ko àttewaat comme la coalition wàllu bi docteur Cheikh Dieng jiite moo gagné na ko jox pouvoir am moo gën. est-ce déposé ngeen recours. dép déposé nañu recours. mais naa dinañ ko déposé. dinañ ko déposé incha allah. déposé recours kay mooy mooy wóolu ngeen justice. de. déposé nañu recours déposé nañu recours te duñ ci bañ dara li tax duñ ci bañ dara li tax duñ ci bañ dara mooy Macky Sall dina diñu dinañu delloo suñu pouvoir suñu suñu pou suñu suñu élection yi nga xam ne le 23 janvier coalition Wallu moo ko gagné Macky Sall ñu ko delloo ndam li day delluwaat ci la coalition Wallu bu soobee yàlla parce que àddina yëpp àddina yëpp xam na ne la coalition wallu moo gagné élection yi ci département de Pikine kon nag na am ngor am courage wax nijaayam ne perte nga nijaayam félicité docteur Cheikh Dieng ne ko gagné nga élection yi ñëwal ñëwal jël sa place mais bu ko deful ay bakkan dina rot ci département de Pikine parce que nag duñ ci bañ dara duñ ci bañ dara dañuy jaay suñu bakken nu nu mu nu mu ñëwee rek baax na fan yi yëpp ñoo ngi def ay marche fan yëpp ñoo ngi def ay marche waaw duñ ci bañ dara wax ne rek tey bu ñu taxawee di wax dañuy wax avec un cœur meurtri xol boo xam ne dafa fees parce que bu fekkee dañoo toll ci moment boo xam ne askanu Pikine ñoo booloo ne timboo bëggatuñ la doyal nañ sëkk timboo moom noonu mooy ci ci pouvoir bi ne du ko joxe kon damay jàpp ne dañoo salfaañe ak ak yelleefu population doomu Pikine bi nga xam ne dañoo jël seeni voix dugal ko ci urne yi ne Timbo doyal nañ timboo nag fi nga xam ne fu la sukkandiku pour voler la voix des Pikinois mooy dañoo dañoo corrompre par exemple ba jusqu'au plus haut niveau parce que bu ñu demee ba commission de recensement cest voilà bu ñu demee maanaam dañ leen a soit dañ leen a jënd wala dañ leen a neexal bu ñu demee ba commission de recensement nga war a xam dafa war a tëddee njaaxaanaay mu dem ba nga xam ne day dem bay corriger ay PV parce que ñun amoon nañ fa ay yaakaar sax parce que am ngeen ay représentants ci commission bi commission bi génne résultat ngeen ne doo leen ko accepté voilà euh, bu ñu demee bay corriger ay PV ci loolu laay ñëw suñu représentant yi bu ñu waxee ñu ne leen faites vos observations maanaam soit da ngay def sa observation wala ñu génn la léegi bu demee ba nga xam ne aussi dafa am bureau yoo xam ne dañ koy jël ci commune yi nga xam ne par exemple ñun ñëpp dañ fa avantage xam nañ ne wallu da koy moom ñu jël ay ay ay PV yoo xam ne zéro zéro zéro la ñu defal wal loolu ñëpp xam nañ c'est impossible ñun ñu ne lool dafa bokk ci yi nga xam ne fa lañ fa lañ tënku sàcc élection yi beneen bi mooy bu ñu nee bureau bi nombre de suffrages valablement exprimé nombre bii la comment se fait-il bureau boobu noonu nombre total bi nga xam ne ñoo voté bëgg a ëpp nombre de suffrages valablement exprimé lool ñëpp xam nañ ne sàcc la beneen bi aussi ñuy wax ne dañoo jàpp bureau yoo xam ne yu bëri ñoom dañ koo annulé mooy bureau yi nga xam ne ñoom favorable leen ñu annulé ko seulement que nee nañ soit vote yi baax wala PV léegi nag ñun dañuy wax ñun waa waa waa Jidda Thiaroye Kaw njabootu Cheikh Dieng particulièrement que lii nii nga xam ne dafa am Ablaye Timbo di ko def Macky Sall di ko ci jàppale parce que jarbaatam la duñ ko nangu te ñun la jeunesse de Pikine dinañ xeex jusqu'aux dernières force bi nga xam ne moom lañ am duñ nangu Macky Sall di fal salfaañe suñ àq ak suñ yelleef suñ voix yi nga xam ne dañ koo jël dugal ko ci urne yi ne Ablaye Timbo doyal nañ ci moom sëkk sëkk du duñ nangu benn yoon ñu koy fooxat dinañ ànd ak docteur Cheikh Dieng xeex ko ba lu luñ si am jël. mais ne da ngeen di déposer recours ku dem ba déposer recours mooy am na confiance ci autorités yi administrative yi léegi léegi recours boobu noonu lañ ko naan def du génnee ne dañ leen gañe. non euh, dinañ dem ci recours mais balaa lool dafa am loo xam ne sax dafa njëkk a téye xel parce que bu ñu demee ba ay président de tribunal di corriger ay PV ñun loolu rek dafa dalul suñ xel moo tax ñu ne. dinañ mëne la bataille politique mëne la bataille judiciaire parce que nag bu ñu gisee Ablaye Timbo di tambaambalu ci dëkk bi te boobu ba léegi résultat yi génn guñ yoon mooy wane ne am na luñ ko dëy am na luñ ko dëy boobu nag mooy nee nañ ko dinañ la sàccal élection yi dinañ la joxaat pikin Pikine nag docteur Cheikh daf ne dafa ñëw pour defar Pikine une ville sécurisée moderne defar ko ba nga xam ne carrément njabootu Pikine dinañ gis carrément changement ci Pikine ñëpp ànd ceeg moom nag muy la coalition yeeweeg coalition yi nekk ci Pikine yëpp dañoo jël seeni i voix jox ko docteur ne ko yaa ñu doy kon nag ñu ngi koy wax fii devant tout le monde que nous les jeunes du département de Pikine duñ nangu li Macky Sall nar a def bëgg a salfaañi suñu àq ak yelleef duñ ko nangu te dinañ dem jusqu'au buu dinañ dem jusqu'au buu dañ koy avertir lii nii nga xam ne mu ngi koy def na ko rectifier immédiatement il n'est pas trop tard dañ koy lancer appel moom mu xool ci njabootam mu xool ci njabootam xam ne lii way bu ñaaw la way bu ñaaw bu muy jox bu muy indil njabootam parce que dafa sàcc te nag nga màgg ñu naan la sa baay dafa sàccoon pour toog loolu ñaaw la timboo dañ lay lancer appel il n'est jamais trop pour bien faire rectifie le tir delluwaatal sa xel nga xam ne docteur Cheikh Dieng gañe na la jël bu gañe bu set wecc la la gañe voilà loolu laa am lu may wax. ñu ngi lay jaajëfal